kontaan euh, rek comme ma ko waxee yaagoon na yaagoon naa ko bëgg a def mais euh, sant yàlla def naa ko fii si terrain bi xam nga suñ si kanam suñ public yooyu maa ngi sant yàlla bu baax ñu bëri topp si ko incha allah xam naa ne gaa ginnaaw am man aussi yaagoon naa ko bëgg def mais yàlla lu mu dogal rek mais saa yi sant yàlla commencé naa yàlla na continuer soulagement la si ñun parce que voilà enseigner deux matchs à loolu du lu ñu bëggoon mais alhamdulilah tey euh, bien vrai que match bu métti lañ lañ don doon xaar mais après il yàlla dogal ni ñoom dañoo am rouge ils étaient moins et voilà alhamdulilah cause après aussi euh, joué nañ bu baax jaaree na garde nañ bal bi te def nañ ay créé nañ ay occasion yu bëri et alhamdulilah ba dugal nañ ay kat bi j'espère que le public bi kontaan nañ. Bon, je dirais ça va, hein, parce que j'ai pas marqué, je voulais marquer, mais ça va, on a, on a gagné, c'est c'est le collectif qui passe en premier, et, alhamdoulilah. Ouais, non, beaucoup de gens ont mais bon, le collectif est moins indiqué. Mais là, Alhamdoulilah, gagné. Et il faut que nous nous concentrés, sur le Massibus Top.